بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام للقدم والبقاء قدما لا بداية له وبقاء لا انتهاء له وهو ذو الجلال والإكرام والعزة والجبروت والصلاة والسلام على من أقام بنيان التوحيد ومرتد أركانه وجمله وكمله وهو التاج أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فإسرافكم على الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن نهى نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فموضوع بحثنا اليوم يتعلق بالتوحيد فكلمة التوحيد مصدر جاء من وحد يقال وحده توحيدا أي جعله واحدا أما الوحدانية فحالة المتوحد فمستقات الكلمة كثيرة ولكننا نحن لسنا في درس علم التصريف وعلى كل هذه فالمصطلحات الشرعية أخذت الكلمة وساقتها فصارت علما قائما بنفسه لا يصح إيمان المرء بدون معرفته معرفة تامة فمعرفة الله تعالى بثبوت ما يجب من الصفات ونفي ما يستحيل وجواز ما يجوز منها لا يخرج به المرء من التقليد وهو الأخذ بقول الخير بلا دليل فالتوحيد مادة خطيرة يتحتم الاعتناء بها حقيقة لأن به مناط السعادة والشقاوة الدنيوية والأخروية للإنسان وهو علم كلما ازددت فيه بحثا وتنقيبا علمت أنه هو مبدأ العلم ومنتهاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julli mbokki Serekunda mbokki Banjul mbokki Birkaama yi mbokki Kombo gi yëpp mbokki Gambia ak Gambia yëpp maa ngi leen di nuyu ci kàddu

waaye arab boo xam ne jullit la bu gën a nuyu arab boo xam ne jullit la daf ko naan assalaamu aleykum nga dem ci beneen làkk naka loolu làkk boo dem am na si nuyu bopp waaye làkk yi mooy ah nuyoo bi nga xam ne làkk yi yépp a ko bokk la ko dooree ci suñu bàyyi aadama ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bu te rek yéen fii ci àddina ay léegi itam te bis penc mu yàlla suñu yàlla jéggalee suturaal ñu boole ci ñi ne seetal la yoon kii wala du jafar jaar jël ñu teel jafar dafa am ñoo ne seen la yoon kii wala du jafar jaar sax ñooñu rek ñuy wuti nag ku dul ñooñu doo wuti yonent bi nag képp ku yàlla topp na la war a topp yow doo wuti xamal ni yow doo wuti kon ñi yàlla euh, réglé réglé mel ni ku dajeeg ab kal mel ni paa bu dajeeg njaañeen ni karante yàlla ku nar a yóbbu àjjana te di la kon di la réglé noonu la lay réglé su ko defee nga leen mu ree ngeen ngeen ngeen ngeen tàggatoo tàggatoo alquran dafa wax ci suratul inshiqaq fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ñun ñu leen di mucc am ñoo xam ne ñoom dañuy jógee ci seen i bàmmeel seen i xalxalam taaru ba mel ni weer bu toll ci fukki fan ak ñeenti ba tëdd fukki fan ak juróom wala ñu mel ni biccu boo xam ne bii dafa fàtte ci arab kooku la ñuy jógee rek malaaka yi jiital leen di leen musigal di tudd yàlla subhanahu wa taala di leen sport ba dugal ñu àjjana ñooñu la nag seen mbir doy na waar mujarrabaɓe leydi sinno ɓe goɗɗugo arjanna assalamu aleykum ladi miru alqurana ko wax alquran mo wax ne wa aljanna tino miru mowoni salamun aleykum bima sabartum fa niama uqba dar kon jullit suy ñëwee mbokkam jullitam daf ko naan assalamu aleykum moo xam suba la moo xam bëccëg la moo xam ngoon la moo xam guddi la فقل السلام عليكم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها فحيوا يعني ردوا الجواب بأحسن منها بيانا آه، لما ينفي حيوبا ولم ينفي فحيوا نغن رفقين نونا لو رجع ما نيني واسيرا كنا جب ما نيني تم imam bi nga xamne mom la la ci tan ci jumaa ji imam koy siyaare di siyaare njabootam gépp rawatina nag doomam bi nga xam ne ci sama programme moy ci ma ci ay doomam mo di al oustaz Baba li nga xamne zamirul zamilul kibaar la maanaam la bokk la ci liggéey bii ñu nekk maa ngi koy ñu te di ko tabagal ci jotaay bi nga xam ne mu ngi ñëw toog fii ma dend ak moom mu dend ak man te yàlla tax maa ngi koy nuyu di ko tëragal ak mboolem ustaas boo xam ne bii yaa ci toog ma ne naa topp nit ñi ñëpp leen wax dana ñu mer du mën a tudd Ba ñu ngi ko feeñal fii jaratul yokk ci benn kaar ndimbal ñu ko feeñal ne moom lay dimbali jumaa ji ak moom sunna bi mën a jaratul yokk benn kaar kenn tey fi nekk bari nañ gis naa ci ustaz ba xam jóg Habib Lo Habib Lo ndax déggoon naa ci feeku islam mu ne doomu aadama yi dañ jurante ñaari yoon ki la jur ci deret ak ki la jur ci ruuxu mu ne ki la jur ci ruuxu moo gën a foor ndax kooku moom àjjana rek la jur am na ku la jur ci deret moom safara la jëmee am na bàyyi yoo xam ne safara la jëmee doomam waaye sëy bu baax bu jëmee taalibe safara fu ngeen ko mos a gisee waaw taalibe kay mooy pare jëm safara waaye sëriñ bi jëmee taalibe safara da tax na maa ngi koy ñëw fàtte naa ko doon nag tuure Aliou Touré sëriñ Aliou Touré maa ngi koy ñëw ah borom xam-xam yi fi teew yëpp ku ma ci tudd itam na nga ma baal àq koo ci xam ne kii tudd ma rek na nga ma baal àq waaw maa ngi nuyu sama mbokk mii nga xam ne ñoo bokk ci liggéey ci benn place mu mu di sama mag Alaaji Asan Njaay li muy waale établir képp dafa doole ci ministre ba ci daara su bi ba ci ñeneen ñi ñëpp maa ngi leen di nuyu lorsque bi ci biir maa ngi leen di nuyu ñëpp ndax xoolal ci dana ñuy léem dégg naa ci man ñu alors man danaa wax la lu nekk lu am waaye lu mu la yóbbu dëgg alors sax man dama ci yokk rek lu mu la خير من دي جاري تعددي الذين متقوا غير في ملك ألف يلا بصبر دوس لو جميع وانا وانا كان ما صب بل كان لي بدل تقول لك كما تفعل فقرانا الفضل للمتقدمين لولا برا مقام الحرج الواسط الفضل للمتقدمين قال كنا افتكار لنا مقام الكوان ما لي ينبي دلون بكل كل بيجي على أمك بيه رقم لنا بسوء في البيت caɗeele ɗi fanneñe li alquran wahyide miti ko yamalu fako yara llahu amalakum wa rasuluhu walmuminun li alquran wax moo waɗine ɗi mi jokleen sumin jëfe yàlla gis akam yonentam ak képp ko gëm yàlla من القرآن muy waxe katul muslim doy na waar borom xam-xam yi dañu wuute ci al iman wal islam ndax wuute nañ wala déet ñi ne wuute nañ ñi ne déedéet wuute nañ lépp benn la ku am liman foog nga am l'islam ku am l'islam foog nga am liman am nañu wax loolu le waaye soo demee ci suratul fujiraat alquran daf ko fa leeral nañ ne liman ak islam du benn dama ko gis ci Ihya wa Ulumuddin boo bi nga xam ne al imaamu Abu Haalid Muhammad al-Ghazali moo ko liggéey ma ne xaama lu tax ñu utee lu tax ñu utee ndax dafa leer nañu ci surat al-Hujurat qaalat al-a'raabu aamanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadxuli al-iimaanu fi quluubikum loolu dafa leer nekk nit mën naa nekk di muslim fekk nekkoo di jullit nekkoo di mu'min alquran ko dafa am ay nit koo xam ne jógee woon ci àll ba nit mën naa dëkk ci kaw baax nit mën naa dëkk ci kaw baax mbaax daal ci loxo yàlla la nekk ku ko neex rek mu jox la ko waaye ñi ca kaw dalam jógee arab yi di leen tuddee al aarab mooy nit ci kaw ko ومن ذلك تأجري أمر اللبالي من يولد فينا في صلى الله عليه وسلم بجهة يدد لدينا وعلا لن يكون عندي وعطة يا محمد يا محمد لكو جوارب في الموركين كيف سورة الوقم جرار يا الذي وحش جلين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له بالقول كجعل بعضكم لبعض الدعوة أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى ومن بسوسة السنة با سنة دي قالوا عن كلمة صلى الله عليه وسلم من كفارها كيانا فارها وقنا فارنيك وقنا بعميك آه، نيوم لك بانك تجونا تبيدنا لتوب فتانا وعندك بوضع jama no ngi naqari trop waaw nawet amul maaro manki waaw dugub manki te dara dara nekk ci ñu ñëw biñ tuubee ba pare rek mel ni ku ñëwoon fii ci imam fekk ko muy jiite ñu tàkkusaan nga tuub ñëpp seede ko nga dem bala ngaa àgg ci tali bi wëñ ni ku siyaar naan ko man nga siñ bii def saa ko maale yi na nga ci génnee jox ndax ñun dugg nañ ci diina ji te sonnaluñ la هو لك جنب الجوف من المعرض yàlla ne leen déedéet nag yéen da ngeen dugg ci lislaam waaye tuubagu leen nag li la lii ma duggagul ci seen xol yi kon ñoom daanaka daal maaro tax ñu ñëw xaarat al aaraabu aman naa ñoom dañ ne gëm nañ yàlla kon Muhammad wax leen ne lan tuuminoo gëmagu leen yàlla la ko doonee ba ngeen dugal seen dëkk ba léegi ñii ngeen di wax gëmagu leen yàlla walakin qulu aslamnaa ne leen yëbbulu nañ dugg nañ ci diina ji waaye gëmagu leen yàlla kon kalimatu muslim ak kalimatu mu'min baynahuma farqun baynahuma farq teqale ko min ci seen diggante ñoom ñaar seen jëf yi nag jëfi mu'min la jëfi ku gëm yàlla yonente de wax sallallahu alayhi wa sallam nee na su ngeen gisee waaye wax ta foog jàkka de seedeel leen ko ne ku gëm yàlla jàkka xam nga problème bi dañoo bëri lii tax léeg-léeg ñu demee ni man bala nga dugg ci jàkka ji dañoo xaar ba jàkka ji waate tees ñu nekk ci sax bu mujj ba bu imaam ne asalaamaaleykum bu ñuy taale sëlmal rek léeg-léeg sax seen subhanallah bu pare bi fekkee bi jàkka ji àddina bi dund bi dund bi dafa dafa dafa doy waar dund bi àddina bi dafa doy waar waaye ci gëm yàlla pire moom day nekk ci jàkka ji mujj ba day nekk ci jàkka ji dem fa mu jaar Tamam. tidak de iki dakika gider konuşacağız. Yönetimine kuyen kısmında nur. Gittim ben mihtilası. Tımaşı dakika. Sen de yaptığını bu konuya sal. Kondaki dilim döndür, cukup siyasi var. Kesinlikle çok korkan ve tahavva tahavva kudemeyini. Zaten ki tam yada kuyala sokun kızar. Bunda aksiyon dikkat kitap. Bu disiplin korkuyu bari lor lor. Seyahat edemeyecek. فلن يصلح له أن يدخلكم من محض فضله وكرمه إن لم يغير gannaaw na yóbbi ñu yóbbi du jaar maa ngi nuyu jigéen ñi nga xam ne sàkk ngeen ñu ñaanal leen te dara xawoon jigéen ñi julli nii ñoom itam diine gi leen yàlla ci góor la ko wàcce mu di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci nit yi di ko yàlla wàccee ci Muhammad ba noppi jigéen moo jël jinne ji dal di koy boor teese ko ba jinne ji mën a gàddaay dem Madinatul Munawwara loolu jigéen a ko def te gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen moo njëkk gëm yàlla ci kaw suuf kon loolu ngeen lu ma bi kay tam yonent bi ban demee ba gis lu mu attan ngir nakat ba far yàlla amee ci àdduna bi fii yonent bi xam ngeen ne du moromam ci biir du moromam kenn ku yàlla bind arab sax nga xam ne ëmb lépp lu yàlla bind muhammad du moromam du moromam kenn ku dul yàlla waaye bi mu wàccee fii ci kaw suuf waaye nit ko jur nag mu amee ci koy nit boo ko jamee mu nag waaw su lekkul xiif waaw di kontaan di am lu ko naqari ba tax bi mu gisee malaayika ni Jibril dafa am ak tiitaange waaw kan ak kan ak jàmbu ba Muhammad gëm na gëm na li mu gis mu saytaane bi jinne kooku jigéen la kon jigéen ñi nañu xam seen taxawaay xam seen taxawaay ci diine jigéen te bu leen ci dara dara dara mën a génne nañ xam ne ñoo ko moom gannaaw bu ko yàlla wàccee ci ñoom la ci ñoom ci seen loxo la ko teg ñu di ko normal di ko teete bépp dina ji mag kooku la ka ci jiitu moo di yaa Xadija ki bintu Xuwaylid waaw moo di yaa Xadija bintu Xuwaylid ki deretam di ko tuur jullit bi deretam di ko tuur ci àddina ngir lislaam jigéen la jigéen ñi am nañ njëriñ ci dina ji de waaw jullit bi deretam di ko tuuru ruuxam dem àllaaxira ngir diine ji ma ne jigéen la ñu naan ko suma yëfu أبو جهل فصدره صادر محمد بيجي كده بيجي كسمة وفرصاد أبو جهل صادر ديو وفرصاد إيرو لو ربنا عمل لك بيجي لك قبر درس كوي جم تيجي لهم بقبر بقبر بسبب السوف بيجي كده بيجي لا إله إلا الله محمد رسول الله روح جل ala ko moom bu leen ko téye sax ngir tur waaw wala su ngeen ko téye rek yàlla dana bàyyi seen tur ci àddina nit ñi di ko wëy ba bés peccum yàlla yàlla dañ leen teete dugal leen àddana ngeen nekk di boo ci jigéen ñi xuuru ay na ya fa nekk jigéen ñi julli su duggee àddina mooy ëllëg jigéen ñi xuuru ay na ba nekk ca àddina waaw wala leen di ëllëg ndax yéen da ngeen wax dund wax coor feebar kiif ah di di di séeg góor war koo xabatoo

am na ci olof ñu naan waxambaane am ci olof yi naan xale yu góor am ñu naan ab jànq njëgëmaar yi xale yi xale yi islam bi maa ngi leen di nuyu te li ma wax ci jigéen ñi moom laay wax ci yéen yéen nag kenn mënta tënk li ni leen islam soxlaa moo ko tënk fii kon dafay yàq suñu waxtaan islam daf leen soxla trop gis nga ni leen football football team yi soxlaa loolu la leen islam soxlaa wala loolu sax ni leen drogue bi soxlaa loolu la leen islam soxlaa wala loolu ni leen taay bi ak yamba ni leen tàngara soxlaa ak baay la ak club ni leen soxlaa loolu la leen islam bi soxlaa waaye lu raw loolu waaye lu raw loolu لأنكم دماء الأمة أمة إسلامية وأنتم روحها يونينا آه، يدرك أمة إسلامية مركز الإسلام نونينا يدرك نودي أي سيدي كان نودي أي سيدي كام سما مقبل سما الحياة mu ngi góorgóorlu waaye xam naa ne muul bu muul bu muul bu diis du ko mën a yëngu nag la léegi kon muul bu demee ba diis dañ war koo def ci jumaa ji moom mu fexe ba mën boobu am ak ñi koy jàppale kala ko war a yëkkati ndaw ñi loolu tax islam bi daf leen soxla waay ndaw ñi dimbale leen islam bi dimbale seen bopp la yàlla soxlawul kenn kenn ku ko dimbale te loolu su fekkee waxtu yi maye na ko topic bii dina ko indi yàlla soxlawul kenn ku ko dimbale soxlawul ku ko jaamu ñu ne soo ñëwee ci uluhiyyatullah bi haqiqati ilahiyati يلا صوت أكيد بلاك تكتين سنة رأتي بالبيت وزيوات الحياة ولكن كده سنة بيت أو تبين أكيد جل غير يلا برا ونم بالطول مرة يوكن سياحة لكن جيه بجي دارة دارة دارة كان لو بجي دارة لو أنا أفرادة كما قمت فيه ودي هو يكيمو آه، مثل كو خمي مو غير تفروهم بتفر أجرهم di defar ci dikam di mucc àddina alaxira kale boobu mu ngay alak boppam àddina di yàq léppam ba alaxira yàlla yàlla dañ koy farga dugal dafa baax foofu rek lay wutee ne waaye kenn jëriñu ci yàlla dara waaw kenn jëriñu ci yàlla dara loolu tax imaamul ashari te moom la ñuy waxtaan ci ci mataaba waaw ci tariqatul juróoy ji ak saalik ak ci matabul ashari imaamul ashari su ma waxee loolu ci imaamu asali moo ñu andi alquran am lu mu ko firile ci wàllu tawhid ñu fekk la ko dooree ci alaaji abdoulaye ñet jëm ci alaaji malik si jëm ci sëriñ touba bamaram tuuti cheikh la saadu abidi cheikh makout ak mouhamadul muhtar kunti wa man waalahum ila ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu fekk ñu ne woytadoo la ba yàlla gërëm leen looloo tax na mazhab boobu la ñu gis إمام الأصلي عقيدة الأصلية الإمام الجنيدي جنيدنا فريقه مقوم للبرم المنسد المعلمة جنيدي ومن توال الحقيقة من الفك شيخنا أحمد التيجاني تفقه أمينا أمينا توال معرفة بالله لولا تعملي سني وقتا تتولي ناري يا سيدي نيجي يبقى نيسني كرو يبقى آه، نيسني لك dañu toppoon mu jëm ci yàlla subhanahu wa taala kon dañu àgg kon dañu àgg fa borom bi subhanahu wa taala kon léegi ñu jublu nag ci waxtaan bi moo di ne ñu ngi wax ne ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala nga xam ne moo wéetoo mën a amal ak mën a ñàkkal xam ne dëgg yàlla rek ko man amal ak ñàkk loolu yàlla rek ko man ah gis nga parce que bi ñuy naan atom xëy na am na ñoo xam ne duñ xam ne day atom waaye ma andi benn pepp salleen salleen moom ñu koy xam nañ ko benn pepp salleen amul dara amul kenn ku yàlla bind nga mën a formé lu lu mel noonu de amul nga amal ko mais jëlee ko ci ci aadam andi ko ci wujur loolu kenn ma ko fekk yàlla defar la muy defar ba pare mu tibb ci loolu am lu mu ca def waaye amal loolu yàlla rek ko man loolu tax fil ijaad yi waaw moom mooy ki mën a amal waaw te xam nga alaaji Malick wax na ko moom la ubbee ne alhamdulillah bil ijaadi wal qidami ijaad ijaad kalimatun min awjada awjada awjada yujidu ijaada amal na loolu yàlla rek ko man waaw amal amal yàlla rek ko man al ijaa loolu ko ñu ngi koy sant nag ci amal gi muy amal hal ataa ala al insani shay'un min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtali فجعلناه سميعا بصيرا سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قالوا يا شيخ بيت من لا يسمع yow bi nga xam ne yaay borom amal yaay borom ñàkkal yaay borom ñàkkal yaa ci jiitu nag jiitu koo xam ne amul fu mu dalee yaa ciy def itam def koo xam ne amul fu muy yem yaay borom màgg yow yàlla yaay ci mën a terale tam ku am teraanga yaa ko teral yaay ci tedd yaay borom ak mbir yaa rëy te yaa màgg ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te di sëlmal ci moom moom daal mooy koo xam ne mbiram doy na waar moom moom la mbiram doy waar ah tamit bi ngeen joxe tamit bi ngeen tax yàlla bind képp lu bind yéen a ko baax a def yéen ñu ko baax a mën ngeen a tàng de moo ëmb lépp tamit bi moo ëmb julli moo ëmb génne asaka moo ëmb koor moo ëmb ak Makka moo ëmb topp sa yonent moo ëmb defar ak bokk moo ëmb génne sarax moo ëmb bañ lépp lu bon moo ëmb ko lépp lu baax moom tam it ku ko am lii daf lay yomb ku ko ñàkk lii daf lay jafe lool ba tax taw taw yi matière la boo xam am na doole waaw man taw nag benn la sottee la التوحيد فن من الفنون وكثير جدا كان يقول لي لقد موقف على دين شيء من الدين بهذا الدين آدم نقول خرج لنا التوحيد وعلم آدم الأفضاء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأفوال هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك أعلمكم ولم لا علمنا لا إلا ما علمتنا إنك أنت علم القلوب بدأنا قوي مكتابة شنو بقى الأدب عندكم لكل واحد هو لقد ولد آدم بدون يستفتي محمد صلى الله عليه وسلم وقت وقت عليه آه، قوي إنه نتفلع فرد نتعرف فرد جلد ولا يفعل كما تعلم بقى الدنيا رجيم رجب فيه nit doomu adama yi delloo ci ak si nekk ko yàlla di jaamu day barkati doomu adama day na war xëy ni ko yàlla waaye ak daraate di ko yàlla kii nga taxawal barke di ko jaamu wala xeer di ko jaamu xam ngeen ne loolu dafa reer waaye yu ci yàlla yi ak liñ taraay taraay ak liñ sonn sonn waxtu woo xam ne ne jógee liñ kii rek doomu adama yi dal di foyee liñ ci indi woon waaw illa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu tax nit ñi di def mu ngi julli ci moom ndax julli ci moom am na solo moom de mooy ki nga xam ne moo taxaw moo taxaw seen ma dal di dal di tabax tabaxu ponk yi dal di dëgg dëgëral ponk ya dal di koy taara matal ko sëkk dara manqué bi te kenn mën mënu koo laal nag tabax bi mënee su koo laal gis nga li sax sax day yàq damay mel ni ku tabax ak tabaxam yow nga dem ba jub ko يومين بسيط ورديت بدك ملايين لا يعني بنت معه نقدر نسوي تمام يلي تمام هذا إذا مسكوا يا من لينا دوما لا دوما لا وقوة كنا عليه كنا لا لكن لا نسجم من إسرائيل سجم رياح يو يا يا فريق على فريق إسلام دي بكون والله يلا مدير كرم واتبت القرآن يكون يلا محمد نجارة الإسلام بيه جارة نتيجة بجواتي جارة بكل عالم dara man ko yàq dara man ko dara man ko lim biraat wala man ta am ak tëgal xale yi tënk alquran te nee na su ma su ma leen bëggoon a nax jàng suratu nam li foofu ci benn baat ngir ne baat sentence bi sentence bi li koy déyal ne lii dëgg la ma ne dafa bari jumtukaay yi bari kenn moo tawaxee noonu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz inna harfu tawkid la day dëgg la nahnu دليل متكلم لو معه غيره ويكفينك متكلم المتكلم وحده إنا نعم نسلنا منذ بأن نفريض الرجال كل قبر يا لممكن إنا نعم نسلنا الذكرى عليك والنار معرفة فكذلك وإنا كتل كتل وإنا وإسنا كلا إنا جل كبار نمن يعني له لحافظ كتل رجل له سبع لحافظ la la ci day dëgër lewu jàng ma juróom la lil xasri lii dafa doy waar wax yu la ma nag kenn mosu ko mën a wax wallahi Salman Rushdie waroon naa toog fii waa ci mbooloo bi waroon a toog كان ينبغي عليه أن كان جالسا أن يكون جالسا هنا فهو لا تصفي فهو لا تصفي jelboode ko ene fof jelgel man ko jàng waaye demee jàngi l'islam waaw boo xam da ngay jàngi l'islam boole ko la anglais wala làkku français wala nga jowat boole ko carpintaya ci taag di ko jumlee